حمدا لمنزل لنا ولائي ومنزل الشفاء والدواء من امر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء salaamaaleykum chers téléspectateurs comme internet yi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan seen télévision mag bi di Kër Ndaanaan TV ñu leen di gis ab tout l'international sax laay wax ndax télé boo taal di gis ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi toog damay jàll sama droite daal nuyu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Serigne Khadim Ndiaye bu mu dàkkantelee boppam Serigne Khadim bu Serigne Saliou maa ngi lay nuyu baax a baax di la gis sa pàcc waaye bàyyi la nga ñëw téléspectateur yi ñu seetaan qaadiya madinatul ulum seydina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli jërëjëf sëriñ Saliou saadid lisaani nawir jani saafil amaani wasit baraay mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare waat bu baax di siyaare seen bu mag bi di Ndanane TV jamono ju nekk muy fësal ab liggéeyam ci askan wi rawatina bis yi nga xam ne dañ ko ci xaar lu jëm ci wàllu diine waaye lu jëm ci wàllu culture ak mbooleem lu soxal réew mi tey nag ñu ànd ak ñun fii ci Touba fas yéene waxtaane lenn ci màggal gi fas yéene itam dugg bu baax a baax a baax ci ni sëriñ bi jàngalee màggal gi rawatina lu jëm ci taalibe yi ak euh, melaw yi ñu war a mel ci bisu mag ñoo ngi bëgg bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla sa borom bi yàggal ko fi te wéral ko te diisal ko gann yan bi tam attan ko ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaye noonu la ñuy siyaare sëriñ seex moom sëriñ Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ Cheikh say di taawub sëriñ soxee bu di xalifaam moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci barkeb sëriñ Tuubaa kon loolu rek lañ doon nuyoo ba ci kanam ñu tàbbis ci waxtaan wi incha allahu rabbi macha allah ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la jox sa wàcc waaye nuyoo bi am na solo daal raaya ah Cheikh Daaya nekk kat bu mag macha allah moom nekk fi nga xamante ne moom mooy Touba nee naa la Serigne Touba daa njaboote la macha allah ñu am nekk ñoo xamante ne dañoo xam la ñuy def mën la ñuy def te jàngoo it donc nekk lu ñuy ijja wala lu ñuy fortaatu nuyu naa la bu baax baax sëñ bi di la di am mbégte bu baax a baax contentement. waa kay ñu ngi lay delloo siyaar bu baax di la ndokkeel ñoo ngi nuyu mboolem mbokki taalibe yi fu ne nekk di ñu seetaan ñu ngi lay siyaare di nuyu mboolem mbokki taalibe yi di ziare waa Kër Ndaanaan TV noo ngi ziare ñëpp di leen ndokkeel ci màggal gi di ñaan yàlla ko teewee day ñu bari eh, di ñaan Cheikh mu Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér di ko ñaanal sëriñ Amdi Modou Mbène mi fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom dooleel ko moom itam yàggal ko fi lool ba yéene bi ci Cheikh Ibrahima mu àggale lépp ak mbokki taalibe yi ñu ànd ko moom.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 ويا معبا فؤادي دهر مسواه يا سيدا في المال خال سرواه ويا محبا فؤادي دهر مسواه إني أتيت لوجه الله سائركم أبخي بي ليل ما أرجو وأهواه للمنتقى وجدت في النكار ذكرا بي خرقب كبال مكار tawaafu kulli man alayya ankara inda lillahi wa nabi la yuskara tawaafu kulli man alayya ankara inda lillahi wa nabi la yuskara ساق لخير الله فيما ينبى مسار قلبي وأغلى جنبا لله خلوة الكل إنك الواب وسالني أما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفن حياتي للمدمور على من العليم إن ساخرات مما يسعى وكفاني الكافرات لم يمني إلا البهور المغرقات داهن لخمر أو دواء فاسقات macha allah yow bi am na solo ñu daal di tourné si nga xamante ne moom mooy sëñ xaadim sëñ xaadim gannaaw ba ñu ne màggal ndax màggal ku ne xam na ne sëñ bi daa am lu mu siy digle ak lu mu ci lu mu ci euh, tere donc ñi nga xamante ne moom mooy mbokk jigéen ñeeg mbokk ñi nga xamante ne moom mooy taalibe yi kon ki ñëw ci màggal gi mooy point bi ma laaj mm-hmm. gi sant la waaye luy sant mhm. yàlla dane ku ma sant ma dolli la ci alxuraan ndax kat fa in zakartum la ashidanakum mhm. yàlla it dolli na wax ne fa amma bi nihmati rabbika fa hadis nang ma mhm. sant ci xéewal yi ndax kat xéewal yi la yàlla jox mën nga ko cee sant sant nag sëñ Béthio daan jàngale ne cant day nuroog ndamu ndax booy sant ba mu nuróowut ak ndamu wala ba nuróog li ngay def ndamuwut day mel ni sant goo te sant kat ki ngay sant rek moo mën a xam waaye ka taxaw ca wet ga du comprendre kon nga gis ne jàmbaar ju mag gi sëñ Béthio bi ko yàlla sóobee ci jëfe ndigalul sëriñ Tuubaa jooji mooy ki njëkk a rey junniy nag ak juróom ci màggalu sëñ ki sëñ Béthio mooy ki njëkk a rey rëkk ci màggal bi junniy nag ak juróomi téeméer mhm, moom sëñ Béthio mhm. waaye tey laa lay indil point boo xam ne mhm. xam naa ne télé yi bari nañ waxtaankat yi bari waaye lii ma lay wax moom fii laa ko njëkk a waxee muy na nga xam ne at mi yëpp li waa senegal gépp di rey ci ay nag ak i xar ak i giléem mooy tolloog ñetti fan yi ñuy rey lépp ci Touba at mi yëpp at mi yëpp la ñuy faat ay giléem ak i xar ak i nag ci mbooleem waaxi Sénégal gi nu ko xaymaa évaluer ko mooy tolloog ñetti fan yi tolloog malagu Touba gi liñ fiy faat beneen bi ci topp ñi récolté wàllum soble ci niñ koy consommé ci senegal nee nañ soble fii ci Sénégal niñ koy consommé mboolem territoire bi mooy tolloog bisu màggalu tubaal li ñuy consommé ci màggal gisee bokkut ak bio yi bokkut ak ceeb yi bokkut ak diwlin yi bokkut ak boisson yi mhm. bokkut ak paas yi ñuy mhm. jógee un peu partout ci monde bi ngir jëm si dëgg la mhm. nañ xam ne màggal gii Seexul Xadim woote mooy bis bi nga xam ne amut moroom ci àdduna dama wax ne. bis bi ëpp ci àdduna mbooloo mu fay daje. Brésil lay xewee carnaval de Rio waaye bis boobu bis bii am na lu mu amut màggalu Tuubaa moom mooy seul bis boo xam ne dañ ko def ci àdduna bépp moom dong benn bis bi ñu def ci àdduna Makka li muy foor foor ak li muy doon doon aj gu yàlla digle muy farata ci jullit benn rek lañ koy defee muy Makka Makka rek la ñu aje du feneen maddina bokkul ci aj gi Makka rek la ñu aje ah, mbooleem xeeti ponk yi lu ne ak fañ koy defee. waaye màggal Touba rek moo am seexul xaddim mboolem dëkk yu siiw ci àdduna bi fu ne mu am fa kër bu màggalu Touba jotee ñu dem ñu samp fa ak màggal di ko fa màggal fii ma toog di wax boo demee New York dem Belgique dem Canada dem Australie dem itali mbaa nga dem Suède wala Belgique di nga fa fekk partout ñuy def màggalu seexul xaddim loola benn bis amu ko bokkut ak nag 6 million habitants yi daggee ci àdduna bi jëm si Touba yu jóge àdduna bi jëm si fii ci biir Touba loolu kon day mel ni màggal gi Seexul Xaddim woote na ko mu nekk bisub sant yàlla waaye bisub dëkk iblis iblis am solo iblis daa waxoon yàlla ne ko dinaa fexe ba li ëpp ci nit ñi duñ la sant Seexul Xaddim soxla li ëpp ci nit ñi ñu santale ko yàlla kon day mel ni bis bi gaa gàccaal iblis kon xam naa loolu lañ ciy ñëwandi ba ca kanam incha allahu ñu sóobuwaat ci yeneen laaj ànde ko ak yow ànd ko mbokki prestataires yi waaye di gën a bég ci seen bu baax bu mag bii rek di Ndanane TV di télé bu am solo ñoo ngi ci tey fa yéene ci amal waxtaan jëme ko ci màggal gi fas yéene koo ànd ak mbokki téléspectateurs yi nga xam ne mm-hmm. ñu koy salaat un peu partout ci réew mi yal yàlla defal leen jàmm defal leen sutura barkeb Seex Saaliw déglul ma wax la li waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba reyal demam ga ciy borom Tuuba amul morom Mbàkke déglul ma wax waral màggal ga nga ne Seex Bamba reyal demam ga amul moroom Mbàkke taarix ba mooy ama jëy moo di dolub Sëriñ Basiiru ma nee na la yàlla defaloon kalima fi dari defal ko Ibrahima ba yàlla pour faratal tabaski ak tam xarit ne may na ko gaay Mbàkke bi xidmatil xadimin na xudoomi في البر فرل إلى تقسيم la daam besar ca mbootu yoonu géej gaalaay bëgga xam ne bambaay géej gaal soo ko xamul yëral ca saawu sa koor jam abi abdillaay loolu moo bu doon ko nag dem gi sëriñ bamba nee na balay bu doon ko nag dem gi bu doon ko nag demam gi wolof nasaraano te kon di laay ñëpp dem niiraano ñu la yéem ñun ñu nga Bamba bàyyi Serigne Saliou Mbacké Serigne Touba ñëpp a ngi may yéem man ñu bokk la ci yéeme nga la dàqe seytaane ki gaayam bu nii maaj muy taxaw faratay boroomam Sëriñ Tuubaa ci géej la Bamba tijjee dambi xam-xam ba far yor way xalima boroomam sëriñ Tuuba mi ci gi jàlla dàqe seytaane ki gaayam suni maat muy taxaw faratay boroomam sëriñ Bamba ci gi jàlla Bamba ubbee dem xam-xam bu noon ba fa def ko noom mu ne kun cay boroom ba àgg ca yàlla ngën gi yónneen ñu soppi ko soppi léppam muy boroomam Sëriñ Tuuba bi maanaam jox ku dem duy ku soobu ne mes su génnee xam boroomam ku soofu te way aw yoonam wa feesal ci ay leer ba fab di duyal moroomam Sëriñ Tuuba ku weddi ba tax nga bëgg ne may moroomam na def la mu def te wax la mu wax boroomam te dox la mu dox ci réewi Gabon wa Congo ci ay noon te fekku fi moroomam te sàkku ku mel ni Seex Ibra Faati borom wa Ahmadu Lumbe ak lampu boromam Seex Ibrahima Faal te ku mel ni Sidi lool ku juddu ci Mbàkke xamal boromam te la ko xullam jagleeg siidil muxtaar ka dem siyaare yeneen ba moo ki te kan seexal kim ni seexi Bamba seexal te sellal seeni xol ba dun mën a muy boroomam ndaxam ji waawaay sëriñ Bamba ji ko di bi la làmboo mëneef la lim nga nil yéen cey mu boroomam fi nga génn dëgg yàlla am na solo ndaxte li nga xamante ne moom xaadim wax rek laa déggaat si li nga xamante ne moom mooy way wi sëñ xaadim si yow lu waral yoor yoor yoor yooru màggal jërëjëf soxna si ñoo ngi siyaarewaat di bëgg ci njàng mi lool yoor yooruk màggal nag day dafa symboliser ñaar ndax màggal gi moom bis bi yëpp sëriñ saaliw daana wax ne màggal gi kat bu ñaar dëkkee ci kër kenn ki gën koo fonk morom mi ki ko gën a fonk du dog di teggi bëtam li mu gën a fonkoo morom bi ba àddunay tukki sëriñ Saliou itam daana wax ne kenn xamewu ko jaay kër waaye màggal gi ñor na ko ñoraay goo xam ne bu jege si woon te amul lu mu ci def kër gu mu yor dina ko jaay yor yor ji nag dama gis ne sëriñ Touba ba koy santaane ak xar mam ca lorlu woon te wooroon Ahmed Fall Mbakke doomi sëñ Mbakke Kajoor Ahmed Fall Naar lorloo ko xaaf moomee ngir mu saam ko benn bi mu jox ko waajuru sëriñ Abdul Xaadar xëy na togg ko ak añ bam doonoon bokk na ca symboliser ci sama yaakaar waaye daal li jàngkat yi naan tisbaari jeewal jeewal nekkoon lu doy waar ndax kero bi seexul xadim jóge Mbàkke Baari Jolof jëm jeewal tubaab bi yàpp la ngir ñu jëli seexul xadim bisub keroog la sëriñ tubaa njëkk a taseeg tubaab bi foofu ca jeewal loolee yor-yor gu tar la woon te mooy tombeeg bis bii yor-yor googee nag tubaab bay jël si sëñ wax na ca ñetti yëf yu yu yu yu yu yu yu yu doy waar bokk na ca ba mu gisee seexul xadim dane ko tubaab bi de moo ma jox ndigal ma jël si la da ngay mën a oyof ñu ànd dem ci njëkk ak i taraanga mënoo ko may yeew la ba nga ne ngor du yóbbu la. nga dëgëranteeg man bopp ma rendi la yóbbu néew bi suñ tubaa ne ko benn du ci am demuma te doo ma yóbbu doo ma tënk te faf sax fi laay fanaan ne ko ki lay jox ndigal ma wax nga jël si ma man ki may jox ndigal ma wax ma fanaan loole nag yor-yor la goo xam ne kero sëriñ tubaa ci estable ci xel mu dal lu jub tisbaar macha allah te tubaab bi mel na ni ku dëgërante woon ak sëriñ bi ne ko doo fi julli mhm. kon yor-yor googee dëgg yàlla bépp murit boo xam ne fekk na la ci bisu màggal gi mm-hmm. loo jàpp-jàpp ak lu xéewal yi bari bari ak loo sant sant jóob mm-hmm. war ngaa mën a nag jàpp ba sell te dem julli ji war ngaa itam laabal sab xol mm-hmm. waaye sab xel war naa tooy seexul xadim rek moom lañ teg ay nattu teg ko ay coona murit yi di ko feete ci bernew feete ko ci xel mu dal waaye feete ko ci mbégte te ànd ko ñëpp boo demee ci sunu mbokki sian yi ca balaa bañ rayee Sidna Useynu ñoom buñ koy fàttaliku dañuy dagg seen yaram muy nàcc ak di mer di ca mm-hmm. am ci soppiku mm-hmm. ñun nag seexul xadim buy sant mm-hmm. daf ñoo digal ginaar ba giléem ginaar ngir ndawaay ga waaye bul yéem giléem ngir rëyaay ga waaye nag ñu teg ko ci sunna très important bu yaakaar rek lekk la déedéet déedéet xewlu am na ci sor lool ndax sëñ bi dafa préciser can préciser itam xéewal baatub ginaar ba giléem dëgg la waaye buñ fàtte ne sëriñ Tuubaa bi muy digle gàmmu dafa wax ne nañ ko def ci sunna muy mm-hmm. taazimo bi sunnati mm-hmm. yaquduna li jannati mm-hmm. bi izdiyadul minnati li muxlisin maazami kon ndekete noon yi ñuy màgg gàmme noonu rek lañuy ñuy màggale muy da nga koy teg ci sunna rek ni nga koy tegee ci sunna nag mooy bu dee jigéen nga dangay ngay sol lu yiw wàcce sa kaddu te fonk waxtu juróom yi bu la ngànt dabut bu la ngànt dabee nanga nga sol lu yiw wàcce sa kàddu te ut sa kurus tey wird bu fekkee góor yàlla nga na nga sol lu yiw te moytu jaxasoo ak jigéen ña toog ci barab barab bu barab bu wéet wala barab bu man nangoo liggéey moo xam mbana ya la moo xam berne la moo xam jàngal xuraan la wala zikru laa la nga nekk ca mhm. te sàkku tiyaaba te fas li nga bëgg te xam ne magal gi àttan na lépp suñ tubaa sëriñ Saliou nee na bi ko sëriñ bi santaanee dana lu ci waay ji mu jebbi mhm. kon nag lu waay yan magal bi àttan ko mhm. xéewal yeeg réussite total beek mhm. li projet yeek lépp màggal gi attan na ko ñi amul borom kër ak mhm. ñi bëgg a dolleeg mhm. ñi amul soxnaak ñi bëgg ñaarak ak ñëpp màggal gi attan na ko suñ tuwaa moom nee na képp ko màggal la bisub tukkeem bii yowmal xiyaam la ko yàlla di fay ci xéwal du la ump loolu nag war naa tax murit bu ne góorgóorlu sa digg ak sëriñ bi ah li ma ciy dolli nag muy sëñ tubaa moom defal nañu loo xam ne mënuñ koo fay li des ci àdduna wax naa ko ci tele yu bari buñ jëloon giléem yi ci àdduna bépp rey ko mm-hmm. jël xar yi ci àdduna bépp jël nag yi ci àdduna bépp jël mbooleem li dagana lekk rey ko ci bisub sëñ Tuubaa bi taxul ñu def àqi màggal gi buñ jëloon alal ji ci banque yëpp mm-hmm. ba xaalis desatul ci banque yi mm-hmm. ñu ñu dépensé ko ci màggalug sëñ Bàmba gii taxul ñu def àqi suñ Tuubaa ci suñ jëmm yi gis nga soxna si sëriñ Tuubaa day wax lu am solo dane naza ali ma naza ali walaysa min nii yan saw daan wa inna nii bii imman wa mafsaxu yàlla jox na ma loo xam ne dootu ko nangu mukk yàlla may na ma loo xam ne dootu ko récupérer waaye yàlla may yooyu ma ma may man sëñ tubaa ci may yi ci laa nekke ab làquwaay ci laa nekk ab wéeruwaay loolu nag war ñoo xam ne ñun kenn àndal du gaay yi koo tëkkaleeg sëñ tubaa bu ko gëmee ab dof la bu ko gëmut dañ koy nax sëñ tubaa yéemu tëkku yàlla sàkk sëñ tubaa liñ ko def mu rëcc buñ dajaloon àdduna bi def leen ko ñu faatu wax na ko sëñ Mbusoobe bi mu jógee ci tukki bi nee na ko tukki bi day natt yu toll na ni ni sëñ Musaa ko wax ci sóoratu laxwaali muy bàqara sóoratu bàqara nag day mel ni 285 laaya la ci xabs bi bu dee ci wars bi muy 286 kon day mel ni seexul xadim nattu yi bari na waaye nee na ci biir natt ci jëlul benn xaaj ko ñetti xaaj jël ci benn ca ñetti xaaja teg ko waa àdduna ñu faatu ci benn simili duñ ko attan kon sëñ tubaa nattu yi metti woon na ci moom trop sëñ tubaa nattu yi liñ ko teg amu ci benn natt boo xam ne nit àttan na ko yi fi jaaroon muy ulul xasmi di juróomi yonent yi nga xam ne alxuraan da leen a settee berleen mu commencé ca nuux ibrahima moussa Hinsa yonent bi xayrul wara gën gi mu def sallallahu taala alayhi wa sallam am na ci ñett ci ñoom dañ leen a tooñ génn leen waaye génnin ya daa nuroog génn ak seexul xadim yonent yàlla nuux woote na junni at yu teg 83 personnes rek ko gëm waaw mu defaru gaal génn foofa ngir mucc Sëñ Tuubaa ci gaal lañ ko teg yonent yàlla Ibrahima woote na tawhid jëme ci yàlla jamono teg buur bu tudd Namrood ibnu Kanaan mu doon woote ak rububiya noonee la jàmmaarloog moom ba tabal ko ci sawara wa ba yàlla naan yaa naaru koo nii bardan wa salaaman mm. seexul xadim noonu lañ ko jëlee tabal ko ci sawara wu tar te tàng yàlla musal ko nam musaloon Ibrahima mm. yonent yàlla Ismaayil di doom ci Ibrahim tër nan ko bëgg koo rendi ba yàlla farataal tabaski ñu wàcc am xar mm. seexul xadim noonu yi lañ ko tëre ci tukki bi fas yéene koo rendi ngir mu faatu mm. bisu kero ba ko tubaab bi jéemee ndekete gouverneur bay joxe ordre lañ rendi yonent yàlla Moussa rey na nit ci lum tayut ci suufus mant mm-hmm. génn fa dem dëkk bi di Madiyaana def fa ab diir fekk fa yonent yàlla bu mm-hmm. mu jox ko aw yat sàmmaloo ko fukki at ak ñaar may doom bu jigéen mm-hmm. mu am fitu delsiwaat Misra Égypte ngir dajeeg Firawna waa may ko génn gim génn moo ko may la am yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waa Màkka dajaloo na nañ teg ko coono yu metti ngir génne ko makka waaye bañ koy génnee daa nuroo génne ak Seexul Xadim keroog bi ñu génne yonent bi sallallahu taala alayhi waa Màkka dañoo dajaloo ne nañ ko rey ñëpp ne kii defut luñ koy reyee ñu ne kon nañ ko tëj ñu ne buñ ko tëjee am na fi mbokk ndax waa Bani Adnaan ñu ngi fi waa Xuraysin ñu ngi fi te ay mbokkam lan waaye banni umayya ak banni yëpp a ngi fi abu jaxli mii bàyyi la ci moom waaye bëgg na ko xasit naa sidna aliyun mi ngi fi ak mboolem nijaay mi ca desoon wala bene nijaay ba fa desoon noonu la ay alquran ji tudd way is yamkuru bika lazina kafaru ba ca wallaahu xayrul maakirina ca nga gis ne loolu yi moo dal seexul xadim keroog biñ ko yóbboo ndar mu am fa weer fukki fan tubaab bi dañ na nañ ko rey ñu ne defut luñ koy rayee daa àndut ak ñun rek contradictoire yi bariwut ñu ne kon nañ ko tëj ñu ne bu ñu ko tëjee ay mbokkam ñi ngi fii soriwun te maam Cheikh Ibrahima Fall Labbal Mouridina day ku amee pexe la te ku am moyen la ñu ne kon nan ko génne far la dëppoon ci yonante ba ñëppoo ci kawam kooku mooy Seexul Xadim ban ko génne itam fin ko jaarale ci ay circonstances bokk na ca ndar googee lañ ko njëkk a boole gaynde ngir jëm koo lor nag am xel nanguwut ñu xiifal ak gaynde xiif bu méttee métti ba bu gisee nit jëfandikoo ko ñu boole kook seexul xadim gaynde ga sukk mel ni xar mu gis boroomam bisub keroog la gaynde gën a tekk ba tubaab bi mujj yéemu xam na ñoom bu ñu agsee mu fàdd leen waaye seexul xadim jaar fam jaar ak ñoom bañ ko jëlee ndar indi ko ndakaaru seexul xadim daj na lu metti bi mu agsee ndakaaru mi ngi fi agsi waxtu saan jëm timis mhm. woor kooru gàtt nga néeg bañ ko dugal xat na lool mhm. seexul xadim nettali na ne néeg boobu day néeg buñ sofee la ba tàng mhm. def cay sobe def ca mbooleem luy lore ba mu jógee tànkam dugg ci biir mm. ràbb moo bënn tànk bi ba sar mm. waaye teewut bàyyi sëriñ Saliou téyeb kaamilam dëgg la néeg boobee am na fa ñaari fan yoo xam ne lekkul naanu ci turul yàlla tab dafa woor waaye faatul wenn waxtu bañ ko jëlee foofu embarqué ko ci biir tukki bi jaarale ko ci réew yu bari teg ko fa coono yu bari mbooleem luy lor doomu aadama boole nañ kook sëriñ Saliou mm-hmm. boole nañ kook nag wa ca ndakaaru la xewe boole kooki jinne dem nañ sax ba tubaab bi ne kii ginnaaw du koy dee dugal nañ ko ci dugal nañ ko ci fuur deewut dugal nañ ko ci cin di ko togg deewut doole nañ kooku nag deewut léegi nag nañ yàq conscience tranquille moom sëñ Tuubaa Tuubaa bi dëppoo ne ana koy defee mën nañ koy yóbbu foofee ca maa yombee muy garab googu mu am juróomi at àll day àll bu lëndëm te bari ngelaw te bari ay ay xayawaan bari yëf bari xeeti jaan xeeti rab yoo xam ne mën nañ laa lor ci fraction seconde waaye àll boobu tegee sëñ Tuubaa Tuubaa bi dañu bëggoon nit ki boo ko tegee ci àll bu bari bruit te gisul nit mën naa am dépression bopp bi mën naa détourné wu loolu lañ ci jublu woon ñu ne kon ginnaaw suñ tubaa du kuy dee te lor nañ ko munta dee nañ ko bàyyi ci àll bi duñ ko jox lekk duñ ko toppatoo duñ ko jox naan duñ ko kii waaye ku ko jege dañ la tëj gis nga sàmm boobu ko doon dimbale keroog rek ba muy taw mu jël am mbaaram dëkkal fa sëriñ bi dañ koo tëj un ci loolu ngir bañ ko jege sëriñ bi waaye bañ fa wàccee sëriñ bi tey bàyyi sëriñ Saliou dana indi nañ ma ci fu neex a jaamoo yàlla ngir wéetaay ka sëriñ bi nag nga gis ne natt yuñ ko teg yëpp mu génn ci li ko may mu génn ci mooy jomam mooy ful mhm. mooy fitam mooy ngoram waaye mooy xam boppam doomu aadama bu ne da war a xam sa bopp suñ tubaa ku xam boppam la mhm. keroog biñ koy yóbbu gànnaar liñ bëggoon mooy tumuranke ko waaye complexe loo ko ci kanam der bu xees ak der bu ñuul mhm. waaye suñ tubaa day foo ko yóbbu lu mu rek da koy gën a arrangé suñ tubaa musta bëgg mbooloo ah, wéetaay moo ko gënal ndax mu stable bi mu sancee daaru salaam gis ne murid yi gi da ko faa bàyyi jox ko Cheikh Anta Gaawaan borom personnalité ba jox ko taalibe wanji ku ñëw sanc Daaru Manaan Daaru naan commencé bari sëriñ bi di wër Touba ci jamono jooji wër gu metti ba ay mbokkam xamatuñ fu mu nekk loolu nag lañ ca mën a jàngee rek mooy mm-hmm. Seexul Xadim ak dundam musta yomb mm-hmm. Mm-hmm. Seexul Xadim musta def luñ ko lu jëlee nit di ko teg yoo tam Seexul Xadim kum jamonoon teel mhm. ak kum jamonoonteel moo la féete kaw dëgg la te li des ci àdduna mhm. ku nuru seexul xadim mënatu fee wàcc xaju fi mhm. la ko jiitu woon ku mel ni suñ tubaa mus caa am seexul xadim amul morom waa kay ko suñ xaalim waxee rek suñ ba tax na man man man màggal gi saa bu ñëwee rek dama koy waaj dama koy waaj damay bind taalif waaye sëriñ tubaa waaw chaque année rek Sëñ Tuubaa am na am na euh, li son ñu naan signature waaw xam ma maa ko wayaat soxna sunu yaay Ndeye Seck yàlla na ko yàlla yërëm da ko wayoon waaye man dama kaa tëggaat wayaat ko Sëriñ Tuubaa mm-hmm. euh, waaye ren damaa génne Sëriñ Bamba ci xol waaw xam nga Sëriñ Tuubaa dañ ne Sëriñ Tuubaa dañ ne da caa xajul <laughs> yow mi am nga dégg-dégg xam nga Sëriñ Tuubaa sopp ko ak texe la kon noonu ko moom daanaka musiba la te te te Serigne ci xol rek moom moom moom day moom dari lu ne génne kon xanaa ma woy ko rek waaw ma woy ko jàng awal waaye xanaa ma ma ma woy ko rek ma woy ko nii rek Serigne Bamba ci xol dara da ca ku am leen neentel ñu jël Ahmadou Bamba ñu doy sëriñ bamba ci xol dara da caaxajul ku am leneen teel ñu jël ahmadu bamba doy sëriñ bamba ba muy dem ca géej ga ca tukki barey bi mu dellu seedam lu rëy sant ko ñu war xadim xuloo jumlatil lazina aflaw liyatawajjahat wa rabbil muflihun ba tax na cofeel gi am jëm ci yow ci sama xol bee na ci man kenn du jeexal xadim seetal ci xel xoolal ci bët mbakke ku mel ni yow amul waaye suñu xol moo mënul di la boolek leneen xadim man tijaan la xaadira ama may laayeen cana baaki ñeseen ñu sant war xadim sooga mi rasulullah yàlla yónni nangul gaay ahmadu mu raw fa gaay xadim sooga mi rasulullah dawli yàlla yónni nangul seex Ahmadu moo ca gaaya xadim su doon feneen la ko defee ñu dem di fa wuti nga ne laa kii dogal sant ko ñu war xadim ku jëlee feneen say mbir xamoo fa mu sosoo di nga ku la topp réer teggi ko yoonu yàlla la dinga réer ku la topp réer teggi ko yoonu yàlla la sëriñ bamba yow lañu am yaay ki ñu doy xadimu rasuul yaa fi demoon géej dem nga baafali jaari wir wir ba kutume andi ndam li le signature Bamba yaa ko moom la nga signé biro Ndar we dem loo nga gaay nasraane Sëriñ Tuuba ndam li yow moom ku ko wute dala xamul doomi soxna jaara sunu leeral nga Mbàkke leeral ka jor ak bawal ñi fa seenoon lañu daan gaar ca réew yooya nasaraani Seex Bamba faraw mu fa man Mbàkke mu fa daan ñëwam moo di mbégum bu yoneen mbégum lislaam yaa di mbégum diine barke borom Tuuba préparé lii clipam waaw mu mel ni lii def nañ koo clip signature mu mel ni yaatu na sax mhm. waaye ñaari at ci ginnaaw la mhm. daaw nag euh, sant ñu war mhm. laa génne woon mooy sant ñu war ren ma génne Sëriñ Bamba ci xol mu doy waar lool waaw xam naa euh, mbokki taalibe yi ñu ngi koy sinab bu baax même TikTok mi ngi fay daw ko dugg sama page it di fa fekk son yi ak sama page YouTube waaw mu mel ni Sëñ Tuubaa am màggal gi bu ñëwee ñu murit dañuy dof mm-hmm. murit yi dootuñu wér dañuy mel nit ay ay ay ay ñu fireeku waaye Sëñ Tuubaa ñu ko jaral ndax dañoo defal lu ñu jomb dafa war màggal bu ñëwee li naan li naan waxuma la kuy kuy julli sax waaye képp kuy nit ku ñuul rek war ngaa dellu Sëñ Tuubaa njukkal ndax moo ñu goreel ci ci mbuumu njaam mm-hmm. waaw Sëñ Tuubaa moo ñu goreel ñun ñun nit ku ñuul moo ñu may sunu cër kon kon màggalam gi bu ñëwee ñu war ko koo santal suñu borom maanaam cant gi day delluwaat ci ñun ñun ñooy ñun ñooy ñun ñooy sant ñun waaw kon yàlla na yàlla na jàmm yàgg yàlla na ko yàgg fekke sëñ Xaadim maa ngi lay ziar baax moom itam di sama waay di sama wëlëre ñu ñu ñu bokk ay palaato yu bari di di ziar yi sëñ Mbay Saaliw mu mel ni sama sama xamante ak moom ci moom la jaar soxna May maa ngi lay ziar baax. waaw kay. ma nga xamante ne moom mooy sa digg Saaliw jërëjëf soxna May ñoo ngi lay siyaarewaat bu baax man nag dama bokk ci ndaw yi sëriñ Saliou yar ma tàbb ci loxoom ci atum 1993 ca fin ba jaar njurul def fa at yu takku jaar xelkom xaw ma kenn ku dul sëriñ Saliou boobu de kon dama amee rab sama rabu ndëpp Serigne Saliou lay doon man man man Serigne Saliou rek laa xam mbër na ka la jàggi ruur olof yi nag dañuy wax ne ku war ñay ba wàcc loo war day ndaw man sëñ Saliou képp laa ne dann xool ñépp baax nag ku am sag mbaax baax na yàlla na ko yàlla dolli man maa ngi ci sëñ Saliou moom yi nag ma xam ci moom loo xam ne mboolem gaa yu baax yi jiitu woon te siratul anbiya yi di ko jàngale ak téere yi yëpp di jàngale gaa yu baax yi ak seen i jikko koo ci jàpp ay jikkoom aku meloom ci mbaax ba ki sëriñ mu wat ko teg na le dëgg la sëriñ Saliou rek lañ gis ci mu le loo xam ne kenn fayu ko ko mm-hmm. mbooleem ku bokkal suñ tubaa jox na la addiye ju la kenn musta jox di am mboolem ku mu bokkal suñ tubaa jox na la addi julam murit musta jox ñëpp far takkal ko seeni raaya dem mu des fi di doomi suñ tubaa mhm. nekk doomi suñ tubaa jin mu ko mujjat ak bët ci kaw suuf loolu rek ndam lool rek loolu rek grade la macha waaye yëmut ci loolu itam mu doon suñ tubaa mu sotti sëriñ Saliou mooy suñ tubaa lin xaadatil wujuri wal masaali woo bi tey wal jismi wa inni saaliu sëriñ saali woo kin maan jox leen ma ndaw yee def ci ñoom la sëriñ Tuubaa def ci mag ñi sëriñ ma ndaw ci mag ñi Mbakke yaa ko fi dige woon balay sa waaye Sëriñ Saaliw matal na ko danoo bëggoon mu def ci ñun nu am ngërëm ba am alal bu ko defee nu ami doom yëkkati leen andi fi moom mu defar baay defar ay doom lii leen mébétoon a ngi nii agul alhamdulilah ndegam ñoo mujjee ci ay loxo mujjee tam ci am xelam wallaahi lii doy na neel waaw fi ma ci wax rek mooy sëriñ Saliou moom jëmm la joo xam ne wax ci moom xajut ci émission te waxtaan ci sëriñ Saliou mooy naan wuy dolli mar boo ci tàmbalee wax mboolem ku lay seetaan du bëgg nga noppi ndax sëriñ Saliou kat yi daje yi moo ci moom baaxowul di dajoo ci nit sëriñ bi ku gudd fan la ku am barke la ku am yërmande la ku tabe la ku dal la ku dunde lislaam la ku bëgg sëriñ Tuubaa la ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall làmp daan ko dund la waaye itam ku xool benn bëtam bi mboolem jullit ñëpp la yemale leen li alxuraan naan waxtasimu bi abdillahi jamian wala tafarraxu loolee la sëriñ Saliou doon bu max mboolem jullit ñi waaye itam sëriñ Saliou ab citoyen la woon boo xam ne lim liggéeyal réew mi en tant que citoyen rek mooy ki ko njëkk def ci réew mi lim liggéeyal l'islam en tant que jullit mooy ki ko njëkk def ci l'islam ba lislaam sosoo ba léegi li sëriñ Saliou defar ci ay daara tabax ko te sëriñ Saliou musta tabax kër gum moom mhm. loolu nag xam boo ko waxee ñi lay mhm. seetaan te xamuñu nu mu demee dañ naan la këram gii sëñ Saaliw këram gi tabaxu ko këram ga ca Mbuur tabaxu ko këram ga ca Tees tabaxu ko genn gu ci ne ay murit ñoo volontaire tabax ko boo demee ci kër gii ci Touba di nga fa fekk keesug sëñ Moodu Badar Jóob fekk fa koosu keesug sëñ Moodu Ablaay Ndar Faal Ndar fekk fa itam yeneen kees yoo xam ne lenn ci njabootu sëñ Seex Say moo defar miir bi defar yu bari ci yooyu lenn lu ci ëpp sëñ Béthio defaraat ko boo demee Mbuur noonu boo demee Thiès euh, sëñ Béthio moo ko defar waaye nag bu ñuy wax ci sëriñ Saliou ak moment bii di màggal du jar may guddal waxtaan wi dama koy jël rek xëpp ko sëñ Béthio waaye nag luñ wax wax sëñ Béthio ak lu sëñ Béthio doon doon jàmbaar te naqaree roy nañ xam ne sëriñ Saliou defar na yeneen jàmbaar yoo xam ne buñ waxoon ci ñoom mu mat émission commence par sëriñ Saliou Touré jàmbaari l'islam sëriñ Saliou Touré de sagub diine la sagub yoonu murit la sagub lislaam la ndax sëriñ Saliou Touré nam meloon ci diina ji mel ko cees mel ko ci lislaam kenn mus gis ku mel noonu ba nga xam ne murit yëpp ak yëpp maasa nañ xam ne amul remplaçant moom sëriñ Saliou Touré kenn mënu koo wuutu ca lam doonoon ca Thiès ci bëgg seexul xaadim ca dëggu ga lépp lu laal sëriñ bi ca digg ba lay dem leen jaamu ji yàlla leen suñ tubaa kenn leen suñ tubaa lii rek moo nekkoon kàddoom sëñ Béthio mii mm-hmm. nii mu mel mm-hmm. ak nii ko sëriñ Saliou def moom sëñ Béthio nga xam ne sëñ Béthio rek mooy sël ci àdduna kun xam koo xam ne mën na laa bañ a waxi laaya bañ a waxi waaye bu waxee wax ja di mm-hmm. laaya dëgg di aaya dëgg la bu waxee ba noppi boo demee ci xasida yi fekk fa bayit ba bu waxee ba noppi boo demee ci alxuraan fekk fa laaya ca mm-hmm. ndax lan du waxee bakkanam mu nekkoon jàmbaar loolu léeg-léeg sax dingatkat yi naan sëñ Béthio nee na alxuraan xamu ci lu waaw ah, waaye ñoo gàtt xam-xam te gàtt xel sëñ Béthio lu wax alxuraan la nekk nag jëfkat boo xam ne démb rek daa am ku ma nettali lu xoromu mm-hmm. Euh, ma dem kër sëñ Saliou ndigal Thioune saan doon ko siyaare mu jox ma yére bu rafet trois morceaux fii ci janatu laa ko siyaar démb mhm. mu jox ma yére boo xam ne kenn solo gu ko bés tàq 3 PS jasneer dëgg la ñaw bu set mhm. yëkkati alal ju bari jox ma dëgg la te xam naa la ma yeex a ñëw moo tax mhm. yeewul nag ma dëgg la ndax noonu la koy defee 17 mhm. avril may na ma nag dëgg la sëñ Saliou ndigal cuur jàmbaari la kooku ku mat a ñaanal la ku a la dëgg la baat ko war a waxaat bu bi mu yor a mooy bu yëkkatee kaddu danaan kenn du sëñ Béthio dëgg la wanewul boppam jëlul boppam teg ko ci kaw cantaaku dëgg la waaye daa bëgg ñëpp ànd ber sëñ Béthio mm-hmm. ndax sëñ Béthio rek moo fi nekk dëgg la ah, may siyaare bu baax sëñ Saliou ndigal cuun di ko ñaanal jàmm xéewal waaye di siyaare Sidina cuun rakam di jàmbaaru sëñ Béthio dëgg la mm-hmm. di werekaan Sidina ko am tawfeex dëgg la moom waajuram ba mu fii ne mm-hmm. da koo bëggoon ba ñëpp xam ne da koo bëgg fu mu jëm ànd ak moom waaye ba lii nii nii ku xam lim doon la dana dann magam di jàppe ko sëriñ jël cantaakun yëpp ànd ak ñoom doon taalibe comme ñoom ndaysaan di jàmbaar lool maa ngi siyaare sunu yaay Aysa bu baax di waajuram di jàmbaar yàgg nekk intellectuel yàgg taxaw sëñ Béthio di siyaare sama yaay Mboose di ko beral cant dëgg la yaay Mboose Diouf moom sëñ Béthio jàmbaari lislaam la mm-hmm. jàmbaari sëriñ Saliou la jàmbaari maam Cheikh Rafal la waaye yaay Mboose mm-hmm. ku taxaw dongay sëriñ Saliou la waaye ku taxaw sëñ Béthio la mm. ba dara dul dara moom la woon ba lépp di dara mm-hmm. mu toog fi yàlla yàlla sàmm ko te wéral ko ci barkeb sëñ Tuubaa waaye maa ngi siyaare mbokki cantaakun yëpp mm-hmm. di ñaanal jàmm mm-hmm. ak xéewal di siyaare bu baax nag jëwrin yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ren bu ma ci tuddee Babacar Diouf jëwrinu màggal gi dina doy sëkk waaye dinaa am jëwrin joo xam ne dama koy tudd beral ko nuyoo muy jëwrin Xaadim Ngom ren liggéey bu am solo bi mu ba téeméeri waañ ak juróom fukk ñu exploité ko ci village yi wër Touba loolee sëñ Béthio mu dolliku la liggéey bu jëm kanam la te mel na ni sëñ Béthio mi ngi fi te mi ngi fi nag kat sëñ Béthio mi ngi fi de dëgg la nii cantaaku nii def mhm. boo demee baas ba suba gis niñ climatisé base bi nañ ko fermé gis niñ yokke giléem yi mhm. gis niñ yokke nag yi gis niñ engagé ci addiya yi mhm. xam ne sëñ Béthio jugu fi waaye lii rek mooy ak taalibe maa ngi siyaare waat bu baax a baax a baax sëñ euh, nekk kenn ci nettoyage nekk kenn ci soxna Mbose euh, di siyaare jëwriñ Thiaw Ah, di siyaare bu baax jëwriñ authentique jëwriñ Pape Moussa authentique Pape Moussa ñoo koy siyaare bu baax ak ak ak ndong ndigal ca New York ak mboolem cantaakoo ni ñoo ngi leen di siyaare barkeb Sëñ Tuubaa di bëgg lool nag ci jotaay bi ak mm. waxtaane màggal gi ak sart yi yal na mm. yàlla defal leen xépp waa Ndanane TV barkeb Sëñ Tuubaa macha allah mu ngi noonu ma daal di geesu si nga xamante ne moom mooy jàngkat bu mag bi waa kay ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi santaat bu baax Seexul Xadim di ñaan yàlla na ko fekkee at yu bari. ak borom Tuubaa tey di di di di di ñaanal bu baax suñ Muntaxa mu yàgg fi te wér ndax moom sagub lislaam la. Mm-hmm. sagub sagub sagub diine la sagub lislaam la. Mm-hmm. ñaan suñu borom doole ko fa yàggal. gannaaw loolu di ñaanal sama sëriñ suñu Cheikh suñ am suñ Modou Blay Fall. Mm-hmm. suñu borom doole ko fa yàggal di bu baax Cheikh Moustapha Al Karim. di sama di sama xarit ak beral cant ak ziar moom day yëkkati ay teraangaam di ñu ko di ko jox di sunu xarit mm-hmm. di di ziare bu baax it euh, sëriñ xaadim silla alxuraan mm-hmm. moom tamit sunu xarit mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp rek soxna xaadim mbay ñu ngi koy ziar bu baax ak sunu sunu sunu soppe yëpp rek waa kay ñi ngi ñi ngi bégg ñëpp di ñaan ñu yàgg koo fekke di ziare sama sama di ñaanal sama yaay sunu sunu sama yaay sama mu yàgg fi lool te wér soxna may maa ngi lay bégg baax di ziare sëriñ xaadim ziare sëñ Momo mi nga xam te ni moom tamit sama teewaay fii tey moo ko waral. ñu ngi koy ziare bu baax. Mhm. di suñu waay di nit ko baax. Mhm. di ñaan suñu boom tamit defal ko toofeex yokk ko bu baax a baax. bi jaay Seexal Xadim jërëjëf man moom Momo dama koy sànni xeer ndax ni ma sonnee ah. bokk ci comité organisation <laughs> màggal gi boobu ba nekk plateau yi di doxal. ndaysaan ba waxtu wi jàpp une heure deux heures mu indi ma fii di ñu defloo waaye nag bëgg ñoo dimbale rek. Mhm. ndax màggal gi moom Seexul Xadim lam daj ci coona murit boo xalaat loo sonn doyut mm-hmm. waaye maa ngi siyaar sama baay bu baax ñu ko wax alaaji askiya Touré moom sëriñ Saliou mm-hmm. alaaji askiya Touré jàmbaari lislaam jàmbaari màggal gi mm-hmm. boo demee këram gis nam def giléem yaa xar ak nag gis nam def baas ba gis nam liggéeyaatee kër ga xam na màggal gi ñor na xam na li Seexul Xadim woote waaye jàmbaari Seex mu nekk ca wetu sëñ Alain Askia mhm. foo gis góor gu baax jàppal na jigéen ju baax a ci wet ga di ko dimbale alaaji Askia bu ko ñëpp xamee ci lu baax mhm. ajaratu ay a tax da koo dimbale taxaw ko ci mboolem sart yi mhm. kon ñoo ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm bu baax ci barkeb Sëñ Tuubaa waaye may siyaare sama rakk ju baax nag euh, muy jàmbaar di kenn ci man moom it ñu di ko wax sëriñ bee xel Xelcom business di jàmbaar lool di taalibib sëriñ Saaliw di borom borom kër yeeg oto yeeg lépp mu di ko business liggéey bu mucc ayib di ci jàmbaar lool itam maa ngi siyaare Serigne Saliou neex jamono moom Serigne Saliou moom it di sama rakk ju baax nangoo liggéey am jom borom iPhone yi nee na ma na nga ñëw ma jox la iPhone. dëgg la loolu ma ne ko dinaa ñëw ndax man eh, eh, eh. iPhone moom amaguma ko. la <laughs> kon sëñ sa amaguma iPhone. ah amaguma ko de ah sëñ sa Saliou neex jamono neex jamono nee na naa ñëw mu jox ma iPhone. kon dinaa dem mu jox ma iPhone incha allahu rabbi maa ngi siyaare waat bu baax nag waa Ndaanaan TV. di ñaanal DG bi. Mm. ak waa rési ak mboolem ku ci nekk di ñaan yéen cameraman yi ak yéen ñu nekk ci technique bi yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura ngeen yàgg màggal si yàgg koo ànd ak ñun te yàlla ngeen fekkee téeméeri màggal yu tàmbali tey barkeb Seexul Xadim sunu xol sedd na ci yoon lool mm-hmm. ndax ni ngeen ko defee nii rek la liggéeyal sëñ tubaa rek ñëw bay seen waar doxal ah, wane comme ñëpp bu ko defee ñu xam ne mbir mi sëñ tubaa rek la te nag ngeen bàyyi xel ne Serigne Touba nee na woon ku ci feeñ dootoo nëbb kon yàlla na yàlla may leen seen satellite bopp yàlla man na ko waxuma ngeen naan ay licence ak ay tenteeg déedéet <laughs> satellite laa leen di ñaanal yàlla ko yàlla def barkeb Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah bu baax a baax remercier aussi ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, euh, Cheikh maa ngi remercier bu baax a baax sëñ Xaadim kontaanoon naa trop macha allah si plateau bi nga xamante ne moom mooy waajtaayu màggal gi di subaak jàmm itam may remercier bu baax a baax ki nga xamante ne tey moo ma solal muy xaadim depuis marché HLM moo ma jox yére bi macha allah xaadim lay a baax ñu koy wax à l'américain maa lay jaajëfal di la si li nga xamante moom nga ma defal tey waaye tamit remercier bu a baax ñi nga xamante ñoo toogoon di seetaan remercier aussi bu baax a baax ñi nga xamante moom mooy Zara ñoom Coro ak ki nga xamante aussi euh, moom mooy euh, ki ñu ngi leen remercier bu baax a aussi bàyyi ñu ko benn yoon vraiment ñu nekk équipe bu dynamique équipe boo xamante def nañ euh, liggéey liggéey bu am solo si màggal gi maanaam marqué nañ seen empreinte ñu ngi remercier bu baax a baax di ñaan yàlla lépp lu ñu fi liggéey suñu borom barkeel li ñu ñëwee si jàmm ñu delluwaat si jàmm incha allah ñaan bépp taalibe boo xamante ne ñëw nga fii si màggal gi ñu ñaan ñëpp rek képp koo xamante ne ñëw nga ko suñu borom nangu waaye yàlla ñëpp ci jàmm ah incha allah kenn bañ a manqué yàlla na mën na ko yàlla na ko def ñu def bu baax a baax di leen remercier merci beaucoup حمدا لمنزل لنا ولا ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مسس مدد يبرأ بلا